Real Madrid am na gone gu bees euh, merengue yi daanaka bu ngeen déggee ñu naan meilleur club du monde mooy coppati yi nga xam ne ñu ngi koy coppati ak feem yi nu am feem yooyu bu ngeen ma toppee ci xibaar yi danaa leen ko wax léegi du jar xaalis bu bari fa nu jëm soriwul ñoom ñi nga xam ne ñooy merengue yi gone yi sol mooy weex yi Mbappé tamit Real tontu na ak Antoine Griezmann ak André Onana ñu commencé ko ak défenseur central bi nga xam ni daanaka ma nga nekk fële nga xam ni mooy équipe bu Cassia bi. wala boo kasi Castilla bi nga xam ne loolee daanaka ñaar fukki at séngam la am ma nga tudd Marvel di défenseur centrale nga xam ni moom moo mais ginnaaw blessure li nga xam ni mooy Eder Militão nga xam ni loolee tey jii gars yi ak ñi ànd ak kii di Carlo Ancelotti ak doomam dugal nañ ko ci équipe bu mag bi léegi fi mu toll nii daanaka mi ngi ci ponkalo maamu équipe bi maanaam équipe A bi di na ak ñoom loole sabab bi mooy kii di Eder Militão mënatul njënd mi jàmp na ñi ngi jeex mën a gun a jëqaloon maanaam moo tax gars yi fi mu toll dañu koy forcer li nga xam ne mooy terrain yi loolee daanaka di am njàngat moo xam ne ñeneen ca club ba andi nañ ko Carlo Ancelotti ak doomam nag ñi nga xam ne daanaka ñoo toppante kii jiite équipe bi ki topp ci moom bu ñu xoolee ba coytu ba xam ne gone googee war nañ kaa mën a dugal dangeen gis ay tànkam yu njëkk fële ca Madrid ti premier match boo xam ne Real nag dana ko recevoir foofee ca Santiago Bernabéu bu dara sensé wul gone gi di ngeen ko gis mu sol mooy bu weex tàll di doxal foofee mu am solo bu baax a baax kon ñu may leen nopp tamit ngeen may nu nopp danañ leen ko toppal moom moomee di ko yees di aw jiwu bees ba xam fu mu mujj ak meilleur club du monde beneen bi mooy kii di André Onana laal na lu toll ci ñeent fukki bal ak juróom-ñeent maanaam 49 bal touché 67 pour cent ci li nga xam ni mooy réussite yoo xam ne def na ko ci ay passe juróom benn arrêt yoo xam ne bu ko téewul woon ay bit lay doon 4 passes décisives 4 yoo xam ni yu gudd la yoo xam ne réussir na ko ak euh, duel yoo xam ne daanaka gagné na ko jàpp ñett ba ñeenti duel sero bi encaissé maanaam ay camp kenn dugal ko benn bi loolee di statistique boo xam ne moom mii di gone gi am na ko mu nekk statistique boo xam ni euh, bu jaar yoon la ci wàllu gardien waaye nag ak ndorteel la nag ndax championnat bi euh, demagul fenn jërëgul gars yi di sar xoole ci moom Mbappé moom daanaka Real Madrid bun sukkandikoo ci ki nga xam ne mooy euh, kii di euh, Amel di ab journaliste boo xam ne boo am doole la nee na Real Madrid musta jël ci li nga xam ne mooy été bi intention daal di recruter ki nga xam ne mooy Kylian ci alal ju bari joo xam ni maanaam gars yi yaakaaroon nañ ko waaye loolee daanaka euh, musta nekk ci xelum Real Madrid loolee tamit daanaka di sëll boo xam ni wax ja bu ko waxee mën nañu jàpp ni mën na koo jëlee ca naw mag waa ndax journaliste bu renseigné wu la tey kon jox bopp la fekk na booba Atlético Madrid daanaka am na ndam tey ji ñetti bal ci benn ndam loolee nag di lu baax. équipe bi nga xam ni kii di Diego Simeone moo koy entraîné loole kon nekk mbégte ci moom ñu ñaanal leen commencement ak championnat bi lépp nekk taw féex Atlético dellusiwaat ci rang yu mag yi.